kontaan la si nomination Alhaji Doudou Ka ministre des transports aériens et du développement des des infrastructures aéroportuaires président de la république Macky Sall def lolu mu lo loo wa ne Casamance yëpp a kontaan waaye kër diine yi def naa a si taxawaay Doudou Ka imaam yi ñoo jël initiative ñoom ñoo am xalaat ñoom ñoo woote ñii woo duuduka ñii woo nañ ma ñii woo nañ keneen ñoom yëpp bëgg a delloo njukkal président de la république ñoo xam ne buñ ko bëggee def noonu dina metti moo tax ñu ne kon dañuy organiser par département tey si suba ñuy woon Bignona famille religieuse yi nekkoon Bignona imam Fansu Bodian euh, jiitee ko te porte parole am euh, taxaw wax si tuuru kilifa diine yi ak imam département bi ñoo na yëpp di sant président de la république Macky Sall di ñaanal gouvernement bi premier ministre Amadou Ba di ñaanal aussi réew mi waaye di wane ne seen kontante si nomination Doudou Ka ñu jóge foofu dem Oussouye imam Oussouye tamit ñëpp patabarkalla ñu daje ñoom tamit benn kaddu mooy waa Casamance kontaan nañu dañuy gërëm président dañuy sant président si nomination Doudou Ka te ñuy ñaanal bu baax tamit Doudou ñu ngi koy terminer fii Ziguinchor fi nga xam ne Ziguinchor Doudou fii la dëkk ak ñun moo tax gis ngeen fa tabarkallah ñépp a ñëw